saa su nekk ci soir d'info euh, ñuy euh, ñëwaat rek ba tey ci wàllu actualité xibaar yi du ñàkk ci kanam ak rédaction bi waaye di leeral rek ñi nga xamante ne dañuy faral di euh, suivre groupe Futurs Médias ci réseaux sociaux yi xam nañ ne amoon nañu yéene dalal tey maire maire mu sacré di Barthélémy Diaz waaye nag dafa am lu ko téye du ñàkk ëllëg dina fi teew incha allah boo ko defee ñu gën a yaatal li nga xamante ne nii mooy waxtaan bi waaye ci ñaareelu pàcc bi gannaaw 20 dinañ dalal Fadel Baro bokk ci mouvement Yanama bu ñëwee rek euh, ñu waxtaanee fii ponk yu bëri mu soxal wàllu actualité pàcc bu njëkk bi ñu daral euh, honorable Awa Guèye nga xamante ne mooy présidente commission euh, santé population affaires sociales ak solidarité nationale bu assemblée nationale honorable dalal jàmm ci plateau. jërëjëf Ndeye Aram maa ngi lay nuyu. di nuyu Daouda di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp ci biir Sénégal ak ci àdduna bi. xam naa euh, honorable yaa tax tey daaw da ñëw <laughs> ndax daaw da gëj nañ koo gis daaw da ñu ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay fay aram di am mbégte encore une fois nekkaat ci plateau bi ànd ak yow. Mm-hmm. alors ñu ñëw ci li nga xamante ne tey moo tax honorable nga teew fi ñu ngi ci contexte bu doy waa Euh, feebar nekk fi euh, Sénégal ñu ngi euh, jëm ci loo xamante ne nii xëy na ci yenn professionnels yi xamuñu lan lay indi ëllëg ndax nit yi yenn saay ci seen wàllu comportement waaye dina baax ñu xam soxna yi seen taxawaay ci xeex bi ci wàllu coronavirus. waaw Aram maa ngi lay sant bu baax di rafetlu vraiment seen liggéey ci biir TFM di wax ni tey teew naa fi comme présidente de la commission. de la santé de la population des affaires sociales et de la solidarité nationale mais teew naa fi surtout en tant que présidente benn comité scientifique boo xam ne madame le ministre de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants madame Ndeye Saly Diop Dieng moo am benn initiative bu mu lancé muy des masques pour sauver des vies contre le Covid-19 les femmes se mobilisent mm-hmm. mu nekk projet bu am solo boo xam ne jigéenu Sénégal yépp ñoo ci sóoboondoo ak moom ñu defar nag euh, diggante cinq mai ak 5 juin lu toll ci un million de masques fas yéene ko séddale ci biir Sénégal. masque yi tailleur yi ñoo ko defar. waaw masque yi am na yoo xam ne tailleur yi nekk ci biir gox goxaan yi ñoo ko defar mais en respectant normes yi nga xam ne ministère de la santé joxe na ko yeneen masque yi nag dañu dem ba approche yi ñu jënd ko boolente loolu yëpp mu nekk effort personnel yoo xam ne jigéen ñi ñoom ñoo ko def. parce que madame la ministre bi mu yëkkatee projet bi dafa ne nañ ci boole bépp jigéen sans distinction nag amul parti bii laa bokk amul coalition bii laa bokk ak secteur d'activité boo mun ti bokk rek yaa ngi ci biir projet boobu. donc ñu àndandoo ko nag def ko nag de de en fonction de la solidarité yow li nga joxe yow yaa ko xam man li ma joxe man maa ko xam kenn du xam lu kenn joxe. donc dañu boole lépp rek mu nekk un million de masques ñu fas yéene ko nag séddale ci biir Sénégal. dañ dañ koy maye ci biir Sénégal di identifier nañu cibles yi nga xam ne ñoom lañ koy jox ci biir Sénégal cibles yooyu li ci jiitu jigéen ñi la. Mm. léegi nag jigéen ñooñu dañuy jox femme médecin yi infirmier yi sage femme d'État yi jox femmes yi nga xam ne ñoo nekk ci marché yi les femmes commerçantes jox les femmes marieuses jox les femmes handicapées jox ñi nekk ci gare routière yi donc ñooñu ñëpp. dañ leen di jox pour ñu takk masque bi parce que xam nañ ne feebar bi fi mu toll moom respect mesure structure rek moo ñu ci mën a génne muy port du masque ak distanciation sociale ak lavage des mains. mais est-ce que du ngeen yem rek ci peut-être euh, capitale régionale yi bañ a dem ci localité yi nga xamante ñoo gën a reculé parce que gis nañ ni am na kii Ndoye Bane benn émission bu muy animé bu ñuy woowee les patrouilles de Ndoye Bane am na ay gox-goxaan mm. reculé dans ce pays là yu nga xamante ne ñoom non seulement amuñu masque xamuñu sax nu ñuy takke masque est-ce que seen sensibilisation no seulement war leen dem ci gox yooyu mais également sensibiliser leen ci nu ñuy takke masque yi aussi. waaw projet bi bu mu jugee ni ñu ko tënkee dañu jël les quarante cinq départements du Sénégal. Mhm. département bu nekk ñu teg fa benn point focal départemental. point focal départemental boobu jël commune bu nekk ci département bi ut fa point focal yëpp nag chapeauté par un point focal régional donc ñooñu ñëpp nag ànd liggéey donc projet bi day dem ci région bi dem ci département bi dem ci commune bi donc ñooñu ñëpp dafay nekk benn chaine boo xam ne ñëpp non seulement dinañ jot seen i masque waaye jigéen ñi dinañu déplacé wu dem waxtaan ak ñoom ci feebar bi wax leen naka la ñuy def pour mucc ci feebar bi te loolu yaakaar naa ne madame la ministre commencé na ko fii ci biir Ndakaaru parce que deux jours yi nga xam ne moom la ñu jëloon def ko lancement mu di jeudi ak vendredi bii passé madame la ministre ànd nañu ak moom dem ci quai de pêche bu Tëngéej mu rencontre jigéen ñi waxtaan ak ñoom jox leen ay masques dolli ci sax ay vivres parce que dañu am benn programme de résilience économique et sociale boo xam ne son excellence monsieur le président de la république moo ko teg madame la ministre ci liggéey liggéey bu rafet dem nañu quai de pêche bu Soumbédioune dem nañ marché central au poisson bu Pikine dem nañ aussi marché bu Guédiawaye loolu yëpp pour rencontrer nit ñi madame la ministre aussi dem na euh, Kër Ndiaye ci champs yi fekk jigéen yi foofu waxtaan ak ñoom ci feebar bi jox leen ay masques donc relais yi nag mooy ñi nekk ci région yi ci communes yi ak ci département yi ñoom aussi dañuy def la même chose ànd ci nag ak l' administration territoriale maanaam les préfets les gouverneurs et les sous-préfets. nee nga euh, jigéen ñi ñoo ci nar a ëpp wàll ndax xam naa ñoo def li ëpp ci liggéey bi ñoo dajale yoon la ñu ñu jox leen euh, jigéen ñi dañuy wax ci njaboot gi te ba tey euh, xale yi ñenn ñi jàngi amul ñu ngi taxawaalu yenn saa yi na leen di gisee ci mbedd bi sax nga xamante ni ñii euh, bàyyi nañu waajur certes waaye euh, accentuer bi nga xam ne war nañ ko accentuer surveillance boobu noonu di aar xale yi di defar masque est-ce que loolu it boole ngeen ko ci seen liggéey. waaw xam nga projet bi ni ma ko waxee c'est un projet du ministère de la femme. de la famille donc bu ñu waxee femme moom wax nañ jigéen ñëpp bu ñu waxee famille nag njaboot gi ñëpp a ci bokk góor ak jigéen ak xale ak mag ak ndaw projet bi nag au lieu ministère bi porteel ko boppam ministre ak générosité am dafa ne nañ ci dugal jigéen ñëpp ñu àndandoo ko liggéey ko looloo tax ci biir projet bi gis nañ ci ay jigéen yu mel ne euh, le maire de Dakar mm. gis nañ ci ku mel ne euh, la présent du conseil économique social et environnemental gis nañ ci ku ki nga xam ne moo nekk FIFA di euh, Fatoumata Sambouka gis nañ ci Assou Traoré gis nañ ci euh, société civile ku mel ne Rokhaya Gassama sama ko sef gis si ku mel ne Ndiore Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ak ay femmes yoo xam ne ci politique bi la ñu nekk ñun ñëpp ñu àndandoo nag nekk benn say doon benn doole yemuñu ci defar masque rek parce que defar masque yomb na. Mm. waaye ñu ci defar masque dañu boole defar masque bi ak sensibilisation bi ak conscientisation bi sensibilisation boobu nag ak conscientisation bi dañuy wax ne nañu respecter les mesures waaye duñ fa yem wax aussi ak jigéen ñi ñu samp njaboot ji ñu sàmm njaboot yi téye leen ci biir kër yi même bu xale yi jàngewul aussi ñu téye leen ci biir kër yi xool naka lañ leen di occupé ba xale yi mën a nekk ci biir kër gi bu ko defee xale yi tamit mun a mucc ci feebar bi parce que même bu fekkee ne feebar bi méchant wul ci xale yi xale yi mën nañ ko am ba pare wàllu ko mag ñi donc loolu moo tax protection des enfants dafa nekk fànn bu am solo ci biir projet bi nga xam ne joxe masque euh, honorable baax na waaye euh, moment bi ñu koy def xëy na ministre dina taxaw wala yenn ci yenn ci responsable di ngeen fa teew mais après suivi boobu noonu tamit dina baax ñu xam nu muy tëddee parce que yenn saa moo xam marché wala feneen di nga dem mais comme ni ñu koy waxee rek am na ñoo xam ne xamuñu ni ñuy solee masque euh, yenn saa mën nañ ne la garaawul wala dama tàng mm. ku ci nekk ak yenn saa yi lay yi nga xamante ne moom lay fësal mm. donc est-ce que suivi boobu it day am sur le terrain pour fexe joxe ngeen masque waaye ñuy jëfee li nga xam ne moom mooy digtal digtal yi ngeen joxe loolu ba tey tënk nañu ko ci biir projet bi parce que boo joxee masque ba pare point focal ba nga xam ne moo nekk ci gox bi nga joxee masque bi moom nag moo war des def suivi bi suñ demee par exemple quai de pêche bu Tëngéej am na ki nga xam ne mooy responsable lu quai de ba moom mooy nekk en relation ak point focal ba nekk ci commune ba ñuy jàpp bés boo xam ne dañuy dugg ci biir quai de bi di xool nit ñi ndax ñu ngi takk masque bi di ko xool aussi ndax takkee nañ ko ni ñu ko war a takkee bu ñu ci xaar tàngoor bu ñu ci xaar seddaay dañ ko war a takk normalement ba heure bu ñuy ñibbi seen kër bu ñu ñibbee seen kër ñu wax leen ne bu ngeen ñibbee nag masque bi na ngeen ko dindi comme c'est des masques lavables na ngeen ko dindi ngeen dem fóot ko ba set weer bu ngeen di xëy suba ngeen jëlaat seen masque takk donc liggéey boobu yëpp suivi liggéey ci parce que nag ñi nga xam ne ñoo ŋànk projet bi tooguñu rek di xaar dañu nekk sur terrain bi ci terrain bi la ñu nekk parce que projet bi parlementaire yi ñu ngi ci. ñoom ñëpp ñu ngi seen gox goxaay yi di liggéey femme politique yi ñu ngi ci femme société civile ñoom ñëpp ñu ngi wàcc ci terrain bi liggéey bi nga xam ne laaj na ko pour protéger les population contre le Covid 19 ñu ngi koy def ci ni mu gën a rafetee. Mm, honorable dama la bëggoon interpeller en tant que euh, député fois mm-hmm. euh, xeex mbas bi. am na benn loi bu nga xam ne dañ ko voté président république bu ñu tuddee loi d'habilitation ngeen jox ko ñetti weer pour que muy jël action yu nga xamante ay actes yu nga xamante ay ordonnances yu nga xamante normalement euh, yéen député yéen yéen a ko war a jël mais article bu constitution dafa prévoir benn euh, loi de ratification. Mm-hmm. léegi ngi nekk ci période boo xam ne décision yi dañ ko war a jël ci nu mu gën a gaawee. Mm. décision yi dafa war a bar donc au lieu ñuy ne décision bi wala lañ lañ war a jël nañ ko yóbbu assemblée député yi di dem commission di dem plénière muy jël temps ñu ne nañu def loi d'habilitation jox président de la république sañ-sañ au lieu muy ñëw assemblée décision yu mu bëgg a jël mu jël ko ci nu mu gën a gaawee donc loolu la ñu voté ba jox le président de la république la loi d'habilitation loi d'habilitation boobu nag moom am na ay ordonnances yu mu ciy jël mais ordonnances yooyu dafa yoo xam mën a indiwaat assemblée nationale ñun ñu ratifier ko donc loolu tamit ñu ngi koy waajal. président am na ay ordonnances yu bari yu mu jël mais député yi ñu ngi xaar ñu ñëwaat l' assemblée nationale pour ratifier ordonnances yooyu bu ko defee dafa mel ne rek assemblée nationale defoon na cachet day defaat encore beneen cachet parce que loolu la yoon loolu la yoon maye ci loi d' habilitation. léegi bu ngeen d' a jël. sax loi yi dinañ ci d' parce que président de la république li mu jël lépp yaakaar naa ne lu askan wi lu askan doon xaar parce que boo jëlee euh, force Covid 19 bi 1000 milliards yi fi mu ko jëmale ñëpp a nga ko doon xaar 69 milliards pour les vivres nit ñi da ñu ngi ko doon xaar li nga xam ne moom la ñu demandé transporteurs yi transporteurs yaa ngi ko doon xaar li nga xam ne moom la jàppale monde de la culture ñu ngi ko doon xaar ak yeneen ak yeneen donc loi yooyu dafa nekk loo xam ne askan wi moom moo ko bëgg di ko xaar kon yaakaar naa ne bu ñu ko indee à l'assemblée du am benn problème da ngeen jox président plein pouvoir ngir mu doxal te yéen it koy def. waaw xam nga wax moom dafa neex. wax dafa yomb euh, président de la république joxuñu ko tous les pouvoirs mais dañ ko jox pouvoir pour que mbas mi mu gérer ko nit ñi mën a am possibilité dund génn ci mbas mi loolu lañ ko jox avec la loi d'habilitation suivi bi nga xam ne moo ci war nag commission bu nekk la ci sa wàll yaa ngi koy taxawu di ko def man par exemple commission bi ma yoree muy la commission de la santé c'est woowuñu ministre bi mu ñëw toog parce que xam nañ ne l'urgence du moment laajul des heures et des heures parce que ñoom am nañ yeneen préoccupation yoo xam ne ñu ngi leen di xaar waaye le ministre de la santé lépp loo xam ne mu ngi koy def mu ngi ci diisoo ak man mi présidente commission boobu ñuy toog di waxtaan lii la ñu def lii la ñu jël comme mesure lii la ñu jël comme comme action ñu di ko xam di ko saytu le moment venu maintenant dinañ ko partager ak suñu ay autres collègues su ko defee ñu ñu ñu xool li nga xam ne collègues yi rafetlu nañ ko li nga xam ne c'est à rectifier aussi ñu xam ne lii kat moom ñun d'accord ñu ci woon te defee nañ ko ni mais yaakaar naa ne depuis que ñu commencé la gestion de Covid 19 gis nañ ne am nañ de très bon résultats bu ñu waxantee dëgg rek résultat yi. baax na très bons résultats fi ma ko fi ma ko wékk mooy boo jëlee nombre de cas yi nga koy xool nga comparer par rapport aux autres pays de la sous-région nga gis ne cas yi euh, le nombre de cas yi moo ëpp nombre de cas yi nga xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi nga nga gis aussi progression décès yi ni muy baree en euh, depuis de mars jusqu'à nos jours 54 décès la ñu am waxuñu ne tuuti na de. waaye nag vraiment gestion bi nga xam ne ñu ngi koy gérer euh, la pandémie yaakaar naa ne am nañ ci ay résultats yu baax parce que le Sénégal est aussi cité en exemple dans la gestion du Covid-19. loolu moom la wax parce que réewu Japon daf boole ci liste réew yi nga xamante ne wax na ay doomi réewam buñ fa dem ndax progression maladie bi ni mu fi amee. waaw loolu c'est l'avis des Japonais mais ñun ñi nekk biir Sénégal gis. Sénégal ni mu mel gis pandémie ni mu fiy évoluer ak ni ñuy gérer c'est vrai la maladie file loolu moom nañu waxante dëgg rek maladie bi mu ngi dem mu ngi dal nit ñi waaye nag ñu ngi koy gérer parce que bu ñu xëyee suba teel bu ñu defee comparaison li ñuy jox comme information du côté du ministère de la santé dañuy gis toujours le nombre de cas guéris moo supérieur au nombre de cas internés dans les hôpitaux donc loolu ba tey. léegi da ngeen bàyyi xel transmission communautaire. boobu nag mooy suñu problème bi mooy problème mais communautaire transmission économique la parce que boo gisee zone yi nga xam ne cas communautaire yi bari na fa mooy les zones économiques zone yi nga xam ne activité économique bi dafa gën bari mu mel ne Dakar lu mel ne Touba lu mel ne Thiès parce que nit ñi dañuy jafalante di jëndante ka jaalante di duggante loolu moo tax cas communautaire yi gën a bari waaye nag cas communautaire yi il faut ñu koy bàyyi xel bu baax a baax parce que nag li nga xam ne dala wàll te xamoo foo ko jëlee lool aussi il faut ñuy bàyyi ci xel bu gën a baax te pour ñu mën ko gérer il faut que ñu respecter les mesures strictes le port lavage mais mains ak la distanciation sociale. Mhm. loolu moom il faut ñu koy def bu kenn nag xaddi bu kenn ne dama sonn. on ne pas c'est pas le moment c'est ñuy sonn wala c'est pas le moment ñuy ñuy xaddi tey la ñu war a gën a taxaw respecter mesures yooyu nga xam ne ministère de la santé et les experts euh, jox nañ ko nit ñi. Mhm. beneen bu nga xam ne mu ngi may inter mu ngi may interpeller également c'est que man dama jàpp ne bon loolu constitution sax bind que initiative des lois appartient au à l'exécutif via les projets de loi et aux députés via de loi. Mm-hmm. mais dañu gis ni assemblée nationale yéen. Mm-hmm. y a que des projets de loi que ngeen di traité. rarement la gis proposition de loi. je pense on a cent quarante députés. comme si cent soixante mhm. yooyu. Mhm. ñoom du saytu li nga xamante moom la askan bi bëgg et puis jël ay proposition de loi jox ko au pour que ñu mun voté ko loolu lan moo ko waral. waaw xam nga li waral loolu mooy euh, assemblée nationale boo gisee texte yi ni ñu ko bindee dafa am souvent des blocages yoo xam ne député bi mën na def sax proposition souvent pour ñu mettre que en en en en exécuté euh, en exécution dafay am problème par exemple boo jëlee douzième législature defoon nañ fi proposition de loi demandant l'élection du maire au suffrage universel defoon nañ fi proposition de loi yeneen yoo xam ne mu ngi jëmoon ci wàllu santé bi yeneen yi mu ngi jëm ci wàllu location bi ak yooyu mais boo defee benn proposition dañ naan la bu amee impact économique. Mhm. yow yaay xalaat. fan la ñuy jëlee xaalis boobu pour compenser ko. moo tax du ngeen loolu nag dafay metti donc yow mun nga def sa proposition de loi teg. waaye pour que proposition loi bi mën a jàll il faut nga wone aussi nañ man fii laa war a jaar fii la war a jaar fii a jaar ba am xaalis boo xam ne dina com dina compenser impact économique bi muy andi loolu nag dafay metti waaye n'empêche député yi ñu ngi liggéey ci réforme du réglement intérieur de l'Assemblée nationale am na si sax ay jéego yoo xam ne jotoon nañ ko voté bi nga xamee ne ñu ngi ubbi session bi en octobre passé donc ñu ngi continuer si chantier boobu xam naa balaa chantier bi jeex yooyu nga xam ne ay obstacle la yëpp dinañ ci gën a waxtaan xool naka lañ koy sulal waaw parce que man li ma jaaxal moo di yéen yéenay voté loi yi mhm. su ngeen amee loi bu nga xam ne na ay obstacle mais pourquoi yéen war leen mën lever obstacle yooyu waaw loolu laa la wax nee naa la ñu ngi ci liggéey mais xam nga bu ñuy voté loi yi aussi dafa am ay charte yoo xam ne ñoom ñoo tënk assemblée national mhm. constitution bi mi ngi nii règlement intérieur de l' assemblée mi ngi nii donc bu ñu dindiwul obstacle yi à ce niveau du ñu mën a dindi obstacle yi nga xam ne ñooy gàllankoor député bi mhm. donc loolu moo tax ma ne la am na ay projet yoo xam ne teg nañ ko projet yooyu bu ñu ci liggéeyee incha allah lépp loo xam ne gàllankoor lu nekk ci règlement intérieur bi dinañ ci waxtaan ñu xool naka lañ koy lever ba député bi gën mën am liberté lu bëgg a mu def ko am na yeneen boo jëlee tey par exemple les présidentes de commission de l'Assemblée les présidentes de commission de l'Assemblée mënuñu par exemple directement interpeller le ministre mënuñu ko C'est le président de l'Assemblée nationale qui a habilité à écrire au gouvernement et à interpeller le ministre donc man Awa su ma bëggoon woo Abdoulaye Diouf Sarr du ma ko mën le ministre de la santé parce que président de l'Assemblée moom rek moo am droit moo am habilité euh, interroger le gouvernement pour que Abdoulaye Diouf Sarr mën a ñëw possibilité yow interpeller le président de l'Assemblée nationale pour wax mais xam nga xam nga Assemblée nationale moom dafa am bureau donc man su ma amee idée mën naa jël idée bi bind teg ci table président de l'Assemblée nationale après nag bureau bi ñoom ñooy waxtaan seen biir bu ñu waxtaanee ñu valider li nga xam ne ñoom décidé nañ ko donc loolu yëpp c'est des yoo xam ne ñu. alors ci contexte bi ñu nekk honorable bëgg naa xam assemblée moom jamono ji luy liggéeyam. waaw xam nga loolu nag ñëpp dañ koy wax xam nga assemblée moom dafa am ñaari liggéey am na liggéey boo xam ne. ci wàllu wote la législatif donc boobu ay loi ngay jàngat di dem commission di dem plénière mais am na liggéey boo xam ne c'est sur le terrain représentativité boo xam ne ci ci terrain bi nga ko war a def te yaakaar naa ne jàngoro ji ba mu amee ba léegi député yu ñu ngi ci terrain bi te li nga xam ne moo ci gën a ëpp solo treizième législature dafa am ay député yu bari yoo xam ne ay maire lañu ci seeni gox ba nga xamee ne pandémie bi jug na ñoom ñëpp dañoo wàcc ci seen i gox ku ci nekk. dem nañu uti ji ay ay ay produits euh, ay euh, nu mu tuddati ay euh, détergent ñi uti ji ay gel alcoolique ñi uti ji ay saabu ñi uti ji ay ceeb diwlin même avant l'aide du gouvernement di ñëw ñoom séddale nañu seen ay askan jàppale leen ci nga xam ne mooy mbas mi amul benn député bu nekk assemblée nationale boo xam ne wàccul ci goxam jël xaalisam jënd ay produits séddale ko askan bi loolu après que assemblée nationale joxe contribution de cinquante millions. le collectif des femmes ñoo njëkk joxe une contribution de deux millions teg ko ci loxo ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr et j'en profite nag pour féliciter vraiment le personnel de santé le personnel médical ndax ñoom seen taxawaay rafet na car macha allah ci mbas mi amul guddi amul bëccëg donc maa ngi leen di féliciter di féliciter aussi monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr mais di féliciter aussi les forces de l'ordre parce que rafet dafa lu tax ma ñëw si lan mooy seen liggéey jamono ji euh, lu mel ni gouvernement bi am nañu yaakaar ne assemblée nationale bu ñu gisee lu doxul dinañ mën a saytu. laction l' euh, action euh, du gouvernement waaye yéen seen liggéey sur le terrain ñun amuñu kenn koo xamante ne ni war nañu mën a wax ah député yi kat li tax ngeen fal leen. ñu ngi koy jëfee ci ci ci biti loolu noonu tey euh, gàllankoor la également ci euh, doxalinu assemblée nationale ndax amuñu possibilité mun a contrôler liggéey bi ngeen di def. waaw xam nga tam assemblée dañuy wax ne suñu projet bi gën a mag mooy la chaîne parlementaire. il faut ñu dem vers une chaîne parlementaire boo xam ne action bu député bi def ci terrain bi chaîne boobu dina ko mën a wone parce que autorités yi ñu ngi ci gox goxaan yi tey boo wàccoon dugg dugg dans le Sénégal dem ci benn commune nga laajte nga ne leen seen député lan la leen jox ñoom seen bopp ñoo lay waxal ne suñu député kat taxaw na lii taxaw na lii taxaw na lii donc nous notre projet euh, phare c'est que l'Assemblée ait une chaîne parlementaire boo xam ne non seulement le travail législatif dinañ ko fa génne mais action yi nga xam ne député yi ñu ngi koy def ci terrain bi ñu mën ko war a génne ci chaîne parlementaire boobu. très bien waxuma nag ne télé yi génne wuñu télé yi ñu ngi génne waaye bu ñu amee suñu chaîne si lay gën a neex. si lay gën a neex mhm. euh, bëgg naa leneen parce que daaw da moo ko souligné mu ñëw ci sama xel ñu ngi wax mbirum littoral bi coow li bëri loolu. ah moom dangeen di xaar rek euh, projet de loi bi euh, ministre Abdou Karim Sall wax bu buñ ko soumettre conseil des ministres ñu indil leen ko. waaw ñu koy xaar te coow li bëri woon yéen dégguñu leen ngeen ngeen ngeen wax coow li bëri woon na trop. Euh, le président de la commission urbanisme de l'Assemblée nationale génn na def benn communiqué euh, mais ba tey loolu doyul am na ay députés yoo xam ne déplacé woon nañ dem ci littoral bi xooli lan moo xew. waaye dañuy rafetlu décision taxawaay bi nga xam ne son excellence monsieur le président de la république am na ko ndax ba mu yëgee coow li dafa joxe ay instructions yu leer nañ ki nga xam ne mooy directeur des domaines ne ko nanga nga lépp loo xam ne attribution la lu dem ci littoral bi boole ci nag. ministre de l'urbanisme rax wax na ko ñu ngi liggéey ci benn projet de loi pour le littoral buñ ñu ko indee incha allah dinañ ko saytu lépp lu ci war rek dinañ ko def. merci merci beaucoup honorable Awa Guèye dinañ ñëwaat ci moom ci. ma bàyyi la yow it nga daal di wéyal foofu. jërëjëf euh, Fatou ne dem ñu ñëwaat euh, ci suñu gan di honorable Awa Guèye ma bàyyi la honorable ak euh, Daouda ndax Daouda sànq yaa ngi ko woon ay questions yu ko bëggoon sànni balaa moom. waaw sànq Aram daf la am lu mu la laajoon ci liggéey bi nga xamante ne moom la député yi di liggéey en dehors de l'hémicycle ba am na loo xamante ne jéego yu nga xamante ne daf ngeen ko sur le terrain. mais man li may li may laaj rek mooy li nga xamante ne moom ngeen war def ci application loi yi nga xamante ne da koy voté. am na sax je pense am benn commission bu ñu tuddee commission des délégations bu existé à l'Assemblée nationale. Mm. mais askan bi gisuñu njariñam mm. lan moo tax est-ce que problème yi nga xamante moom nga doon wax sànq ci texte yi moom moo tax doxul carrément wala lan mooy problème bi ba commission boobu doxul ni mu war a doxe pour saytu loi yi ngeen di voté yéen. waaw euh, loolu moom dafa nekk un problème majeur la question de l'application des lois que nous avons votées. Mm-hmm. parce que nag voté loi am na solo trop. waaye solo bi du yegg tant que loi boobu voté wuñ ko ba mu am jeexital ci askan wi. am na nag à l'Assemblée li ñuy tuddee la commission des délégation commission boobu moom moo am abilité saytu loi yi nga xam ne vote nañ ko mu xool. application bi ndax ñu ngi koy def ni mu jaaree yoon su fekkente ne am na lu ci jaaru yoon mu xool lan moo ko gàllankoor bu fekkee ne dafa am ay solution yu mu war a proposer mu proposer solution yooyu donc commission boobu am na ay liggéey yoo xam ne ñu ngi koy def ci loi yi waaye nag li jëm ci application des lois xam nga ni dafa xaw a doy waar parce que nag magistrat yi ñoom ñoo ñoom ñooy euh, nu mu tuddati exécuter loi bi donc bu ñu ko exécuté nag euh, ñoom tamit dañu nekk ci beneen beneen beneen. beneen pouvoir ñun ñu nekk ci beneen pouvoir donc ñun suñu rôle mooy ñu voté ko ñoom seen rôle mooy loi bi ñu jël ko exécuter ko léegi nag duma wax ne dañuy fayir ci seen rôle déedéet mais peut-être ñoom bu ñu jëlee loi bi ba pare ci exécution bi dina am ay obstacles yoo xam ne dañ koy rencontrer ci exécution bi donc obstacle yooyu nag ñoom dañ ci war a waxtaan ak parlementaires yi. bu ko defee ñu trouver solution damay joxe rek benn exemple mu jëm ci la loi sur la criminalisation du viol loi boobu voté nañu ko mm. mais bi ñu ko voté ba pare magistrat yi nee nañu ah def leen ndànk voté ngeen loi waaye voté rek doyul parce que nag loi bi application bi dina poser problème waaye ñu ngi waxtaan ak ñoom pour ñu xool solution bi nga xam ne moom la ñu war a jël ba loi boobu ñu appliqué ko ci ni mu waree aram balaa may dem di nga ma may nag askan wi yëpp ñu collègue boobu nga xam ne ñoo bokkoon douzième législature muy Mariama mm. Mané te mu génn àdduna donc ñu ngi koy jaale la président de l' assemblée nationale di ko jaale le président des groupes parlementaires de l' assemblée di ko jaale député yëpp di ñaanal yàlla ñaan yàlla xare ko àjjana jéggal ko ay bàkkaaram merci merci beaucoup honorable la présidente la commission santé population affaires sociales solidarité nationale de la pub et on revient juste